yeah. Ulan bai sai sanga de. De de bai. Ulan bai. Mai nam na trop. Wa de na ki kala. Ki mai mai. Ma ngi degi legi bon ngeen may ma tuti sa bir wax. Nan ma bon bai nam na la. Bon kon nam nam na la. Gëti gisse bi nak bon du dara parce que fan yépp dama nekkon ci ay lu ko yëgale kooku doole te ku ne xam ne juddu café borom moo koy sukkaral boppam dama sukkar suma café parce que ne sukkar bépp café bu suma benn xarit bi ñuy wax Malick Ndiaye rakki Ndiawar Ndiaye rakki As Ndiaye fii semence si ngelaw ngelaw teraanga moo koy ëppale bon ko neex cër la ko doomu aadama tadu ne yàlla amul hasard boo def ko cëralee mu dem Australie yaa ngi koy dégg-dégg dëkk bu sori la te xaalis bon fa demee def fa 15 ans 15 mois 15 semaines 15 jours 15 minutes 15 secondes doo koy egg si. waaw Mbaye. waaw Mbaye la Mbaye yaa ngi naan sa doon avion de. waaw dee naa rek aywa. waaw aywa di. dee naa xarit baa ngi tukkal jàmm. ki sama kan kan budan ko da mai fen ah da da mama kuma da mai fen da mai yau nan ah shi gina gina dinga ko fa mana da mai fen gina gina bon di 15 conteneurs dépôt bi mi ngi parcelle inter 15 mo dafa jël 15 kene yëpp na ma mbay prend ma téye mënuma zéro tout ma ne ko rottu tëj di fàttaliku dem ba ñëw def teew parce que conteneur bi ba mu ko ubbee da ko gis lépp lu jëm ci taaru jigéen mi ngi fa ay lanti ay lanti ay lanti mbay ay prix ay gërëfaas ay collier ay chaîne li ci gën a gën a mooy ay anse deux mètres. loolu moom xanaa fu mbal gën a garaaw mooy talon yi nga xamante ni talon bi deux mètres la. loolu mën na si dox solo bu ko Titi solo bu ko ndax gisagu ko ci man ndey la seen bopp nar ko tuddee sama doom ci kàttanu yàlla muy Kumba Gawla Seck boo solo bu ko koy jëkku son tamaa koy jox. xam nga fi dama bëgg boole ak wàññi comme daf ma jox ma géré ma boole ak moom mu jël benn conteneur jox la ko wàññi la ko nga jaay ci loo ci am lu ne mu doon sa wërsëg yaay sa xarit. kooku kay moom mbay li mu dañ ciy jóg moom def loolu fi doon tey. waaw waaw mbay ay mbay mbay man wàccee nga ma de mbay man xaw lan laa la war a wax gi yëpp ma ñëw ba si man wax ma ko mbay mënoon nga lu bëri nga wax mbay mbay bàyyi rek ma bàyyi rek man bëgguma ku may lu baax ma la def lu baax ma nga xam def lu baax tax ma def lu baax ko mo nekul ci digg di koñ bi ni wër di plan ba di prix ba ba aya bi mbam yu ñak fay doy yooyu koy fexal ah, mo la jënde parce que ci seet civilisé bëgg sa bop bo wa mbay fo jëm aw ma ta dama nek ci ay projet parce que minute yi mo tok fi rek ay millions mi may raw ay millions léegi damay def ak yow ndaw rek demain 19 h 19 mo xaar 18 h la lay xaar man ding mo wax ni yëpp ma tok parce que daf ma jox ko que chauffeur bu bees takk caaba yi bees takk cornet bu bees takk la. kon na maa du pep. non du pep ndax pep daa koy dégg lu bëri. foo ko déggee rek génnal te xam ne. ay mbay man 18h na fekk ma taxaw si bunt kër gi di la. xaaral wala ma fi bàyyi. boo fa eggee lépp lu mu la fu ne d' accord am. moom man lu mu wax dama naan ko waaw. mais nag yow kese yaay ñëw. man kese. kese moom kenn duñ toog ñun ñaar kese. te li ma ci gën a neex mooy bis boo ko déggalee li mu la wax nga d' ko loolu yem ci conteneur man lu mu wax dama naan waaw. amul benn man xam man mu wax neex na ma quoi. kii mooy Aminta. parce que dafa am temps quoi. waaw Mbaye foo jëm. mais sax dama nekk ci projet. ay Mbaye bul dem toogal wétaluñu. waaw Mbaye bul dem ñëwit nag. mais nu may toppee nii. Mbaye dama dama lay bëggee ba xëy. boo xam nga dellu sa place quoi. gën a gën a. waaw Mbaye. ok waa Aminta waaru si Mbaye. xoolal mbay lu ma te barki démb la ñëw ñaan ma fukki ma may ko ko tey mu ñëw jox ma dix ma ni la xoolal tey moom matinée ba day xar lii moom xoolal duñ ko sax wax muy dix mille ñu def ba mu baax nuñ ko daan defee tukkal bu ñu nee matinée xar. waaw waaw ay ay bu dee naa matinée ay dégg nga lii ci sama kër gi lañ doon. voilà ku bëgg ndox. ku bëgg ndox la ci. moo invité fii ay xale góor ak bu xaritam bi daal di si ba mu sos sama bàjjen ne ba mu jël sa passé na laaj fa dugg la fii wax ko pour mu wàññi musique bi mu ne du ko wàññi sa bàjjen nga ko yokk ba mu sos. Euh, sa ndey xanaa ñëw fi. Ah sama yaay daa génn. mu dee wëree dee wëree waaye yow yeggali dama pare nga naan tam ci ndey saw mu firi la sa bopp bi demal ko. man nag ku ma mu ndaw dinaa xam ndax may borom kër gi wala moom moom kër gi la may réew. oh yàlla kan. papa ah, daal kii moom ma romb fii may bari nee na moom mooy mbay paa. mbay la mbay paa. bon man maa ngi lay far xale yu ndaw yi xam nañu ne même ñu juddoogul sax ñu tudd sama ginnaaw après dañ may xam ndax tur bi quoi. Hmm. yaa lay pàq. te comme yaay may pàq mi pàqal nii di pàqal lépp lu pàqagul wéy ma. lii riir ci suma kër gi laa bëgg a xam yow nga wax ma ko lan la voilà. seet lii riir nag bon doo la may yàlla. waaw du ma sa morom booy Charles. man fépp fu ma jaar ba jàll souvent su fee. buum lay def. bon yaa ngi daw bu daw dafa nag buum lay def. dama sa morom booy booy tiital booy waxi mbong. te sino góor gi yow li ngay wax bon saful boo amee xorom may ma sino góor gi dégage. la non oui kay dégage. ok merci ah. nañ ko ci ceeb man maay sa morom ñu bàyyi ko naan dégage. ñëw nag may ma xorom. nga jàppale ko teg ci lu am. tàpp seen kat. ñëw. tëjee ko ma ma contrôlé ko. waaye nag man naaf moomu daw laa xam man man man moom ndax ma bëgg a wala wala man je ne sais pas man. man je ne sais ndax bala daal les jours yi danse kon daal mën naa ne sekkin moom sekkin bu ne la baale bon yow nee ma bu ñëwati suma kër nga ñàkk jom ñëw fii. papa baal ñu papa. Ah! papa yow laay waxal kon yow caga nga. kon yow da ngay kon yow da indi ay far. maam kuma mu ndaw téye in bordel. papa baal ma papa putain ca biti ca biti parce que nday ñëw fii. toog fi ndekete yu bon yi ngeen di deglu yi astaghfirullah Oh, billahi doo ko xam. man ma jënd chiche def ma kenn yow daal. te xam ne li nga feebar waaye bari na ñu mu dof loo. ma solution laay moo tax ma wax li ma dal. billahi wallahi xale bi lee yóbbu na sama xel mi fu suñu ko ci dajee. subhanallah subhanallah allahu akbar allahu akbar waaye ku nekk loolu dégg na gaam de dégg na gaam trop waay c'est

waaw sama waay mais nama naa la waaye maa ngi raw dëkkay tëye waaye ça va bon yaa ngi am jàmm waaye sant bi ça va ça va bien mais bon sama affaire yëpp sotti na waaw lépp sotti na lépp lépp lépp sotti na waaw lépp sotti na même li mu waxoon pour nga déposer ma ko numéro maa ngi sotti na waaw lépp sotti na mais bon kon maa ngi ci kaw ah waaw amul problème ok waaw bon toppal sama ginnaaw noonu la yoon xam nga fan la sa mbéy mi moom dina bëgg jàppee addunaam moom nii rek xale jigéen ñi kese suñu daal la sonn bi waaw da nga xam fu ñu jëm. ah Mbaye. loolu tamit saa ko doon dem du ma yegg lan la. xam nga ne gumba du jiitu mbooloo man maa fan la te sànq ba léegi yàgg may fàtte ko man coowal bëri baaxul ci man quoi. day wàññi sama gànnaar quoi. man nag damaa soobee sool naa la. egg nañ ko fii la dem quoi. waaw Mbaye sa

temps bi ma ko may bàyyi ma génn fii une minute réglé ko moom mu ñëw quoi. ma xaar léegi toogal bul am amul benn problème quoi toogal. xam naa ne tàng xaaral ma temps bi ñu ngi kii. waaw. une minute daal ma yow lay def fii. waaw mais nga xool rek yow xam li fi def mais cere. ah yaa ngi mbay man ngeen di teg diir di ma indi fii. mais teg diir comme. man du ma seen cara. yow waxuma la nga bàyyi ma yow. d'accord mais toogal ñu wax. yow toog di wax ak yow. waaw mais eh, puusal damay jaar. laa eh, la puusal yow. munoo maa toog nag laa eh, la ah, puusal damay jaar. bu ma def ma laa ah. la yow <laughs> waaye bu ma tas loolu bu bëgg rek moom c'est bon dimanche xëyuma bon dew ma fenn bàyyi ma toog fii gérer suma famille aw baas awo bon nee naa la bàyyi di wéer yére yi mu may tiim nii quoi day gàttal suma fan te bëgguma dem léegi quoi deug deug bi dëkk bi tremblement de terre tremblement de terre tremblement de terre bon te yàlla nee na nit ñi la gën a bëgg di xaar suuf si di ci dugal nit ñi mais nit ñi tamit war nañu xool li ñuy def ci kaw suuf si parce que asamaan si nga xam ne nit utu fa dara doo fa dégg tremblement de asamaan mbaa pantere bu rek doo ko fa gis fii rek lay amee nit nañu xool li ñuy def ci kaw suuf si waaw waaw ma ne ko sama ma préféré ngi tey Kumba Gawla Seck man yaa may daaneel barki rasulullah yow de lu ne di ko am ci ko suuf ndax sa yermande yaru nga beuri nga yermande ay meday jomma de waa kala ni mbay oh sama waa jaa ngi de mais booy namm naa la waaw xëccal baa bi toog naka mu waaw sant bu yàlla ça va yaa ngi dimanche. yaa <laughs> ngi dimanche mais booy. yaa ngi borom samedi borom samedi bu neex man yaa may daaneel gis nga ku yàlla jiital ku ko bëgg jiitu ku ne dina juutu ndax yàlla la jiital yow tedd nga ku la bëgg effacé yàlla koy effacé mais booy dimanche samedi neex na cum yow doo nit billaahi naan nga man nee loo yóotul ne danga koy am te loo joxoon nit dagg ko mais sa samedi neex na. mu ngi bëgg gudd quoi. Hmm. man xam li ma fi indi sax du samedi bu neex wala bu nakar quoi. ndax booy bi mbay démb da nga déplacé wu rek mu ni dee day topp say tànk quoi te man tere xam nga rek am na yoo xam day yomb ci man quoi. ak li ma financé yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ak li ma ko topp yëpp mu ñëw récupéré wu noonu. dama xam bu mel dafay xeex ak yow foofu yàq fa matériel bu dul ci yàq yaa koy fay te loolu si sama xaay ci la bokk. non xam naa ko quoi xam naa ko dara sax. non man mën naa ko fay quoi c'est que li fa mu xam nga mbay. waaw mais am na lu yàqu loo xamante ne mënu ma ko fay quoi. mooy li la wax rek. bom foofu kenn musu fa xeex dafay dugg créé fa boucan bu dul jeex te kooku tamit bàyyi loolu du dugg du yoon man damaa xam booy bi non créé wu fa boucan quoi maa ngi yow ñoo fa créé boucan quoi maa ngi yow ñoo fa créé boucan ci naka xam nga dama ko mujjee forcé quoi yegg ci koom quoi yegg ci koom comme na waaw mais comme da nga ma bëgg wax kon da nga forcé booy bi violé ko imbécile mais Mbaye mais yow xanaa da ngaa dof yow yow bu mu la indil booy bi lu ñu wax toog waxtaan nga ma violé waaw mais Mbaye man kay waaw Mbaye ay koo waaye nga ma ay tugal fii nga ma mais kii may la man la tere eh man la tere. Eh, eh, xoolal maa la waxoon tere mais doo tere doo benn tere yow roo nga dugal fii waaye nga ma tere. wuy ma man doo may indil problème ndax waxtaan nga waxoon. mais lii ku ma ko waxoon du ma ko gëm. leen dinaa la ko yëgal leen dinaa la ko yëgal laal nga àll réew mi fii di procureur nga laal sa vingt ans kaso xaj na ci man leen laa lay digal quoi. sa papa yow su ma jotee vingt ans yow dafa gàtt rek man daam lu ma lay digal quoi comme tant que xarit nii quoi. nga daw gaaw génn dëkk bi sinon dafa ndàgg rek dafa ndàgg. police dina ma fekk ci kër gi damay dem sam papa day dem sama yaay day dem sam maam day dem aw baas bu day dem te bëgguñ dem jugal nga tegaat si bopp yow sa famille dañoo teg yow li ngay sotti kaw ci suuf. waaw eh, allahu akbar ah man du ma de. waay da ngay dem yow Aliou xam nga lu ma lay yëg xam nga lu ma lay yëg nga jug génn kër yi. waay génn maay. maa béy bi may lay am ah non non waay béy boo dee yàlla ni mi may même. dama la sawee waay xaaral bu dugg sama kër de dégg nga li ma la ok. yow ba doole nga ko yow yow boo dee yàlla ni nga lay def yàlla da lay sërëm yàlla da lay sërëm yow. Agar tay masuk, boobu borom da koy jël gitu, léegi de voilà top nga nekk foofu di wax rek. yaa ngi jëf faay. Moussa. yaa ngi jëf lu bees nag. sama wet. nii au ma toogaay quoi gars yi. amoo yow moom et eh, dal kay toog àgg nañ ma di ma di kay baas bi ñëw <laughs> toog nañ naa la <laughs> cey booy lu bees nice waaye yow lan la yow sama atelier ba mel nii tey nga ñëw noppi mel ni muus mais booy sama eh, yëngul waaye sama gaan nga de soo am problème bi ma mel loo dëgg la quoi. ah yow it. Moussa waruma la nëbbu quoi. ndax mag yow suñu ànd dafa yàgg. waaw waaw waaw loolu moom dëgg la. mais sa gars fi mu toll nii li mu lay bëgg a wax. ñoo xamul nu koy waxee quoi vraiment. vraiment li mu la koy waxee. wax te mënoo ma ko am da nga ma koy wax loo mës a def da nga ma koy wax tey moom. wax ma ko rek booy bu dee loolu ndaw la ma dem rek la ko loolu du tara sama gars yi la tamit ah na leen na bu quoi. waaw mais Moussa. waaw fi toll nii dama nekk ci ay problème ndax jëf naa jëf ji nga xamante ni xaw ma jëfu mala la xaw ma jëfu bon xaw ma nu ma la koy waxee quoi Moussa. booy ban jëf nga jëf. ndax démb ci guddi Moussa dama fi jël benn booy. yóbbu ko fii ci occasion bi ñu demee nag dara dara dara dara dara dara dara Moussa ñu toog waxtaan ma wax mu déglu ma kese kase kese Moussa moo nekkoon sama problème mm-hmm. mais bi ñu demee ba ci biir musaa seytaane daf ma dugg sama xel mu réer sama xel bu rafet réer ma Moussa ba ma def lu ma buggul woon def Moussa. booy lan nga def. Moussa damaa mujj yegg ci doomu jàmm yegg ci jë yegg bu demee nag. Moussa doo dof la mun naa ni viol la quoi. lan. ci kaw lu ma tayul Moussa. xale bi fu mu dëkk. fii la dëkk grand fii la dëkk. xanaa xale bu ndaw la. booy seet am na 18 ans. non. tool na. waa télé am sa yëg na lii. Moussa nee naa la Galla Mbaye laa jugee mu dàq ma moo tax ma jubal ci suñu kër xamal ni du ma fa dugg kër bay laa jóge mënu ma ci xat ma jubal ci si yow instant yi nag vraiment sama xel mi moo fattu sama xel mi moo fattu muy ma. ana booy bi waaw léegi ana déglu ma muy bi. booy bi boo ma paree ci moom laa gëj a xam ci lu mu ne. suñu tool yi man damaa dund yàqu na. fi mu toll nii te man lu mu ci gën a jaaxal booy Moussa mooy sama mère. booy wuy ma. waratoo wax noppi Touré lii yëpp sa yaay la ko waxoon Touré takkal jabar Touré takkal jabar nga naan tu as la devant toi da danga ko war a dox mais fils voilà les conséquences fils xoolal tey lim la yaa ngi def jëf ci nga xamante ne yaa ngi koy rëccu ah booy da nga nax sa bopp parce que xam nga lu la trompé da nga xale bu ndaw am xaalis. teg na tey asamaan si bu doon waaj di ko teg sa loxo boobu nax sa bopp tere jigéen boo gis teg na yow pour yow la tere lan moo fi jar lii fàttalikul keroog ba ñu nekkee hôpital sa papa di sukkuraan lam la waxoon moytul ñaar yi muy jigéen ak xaalis lu yàq lu ne moo la yàqal waaye da nga dëdd loolu yëpp topp sa noon muy sa bakkanu àdduna ngay def lu la neex tey anam yaa ngi jëf cay waaye nag sama xarit nga du ma la mës a daw tey du ma la sori dama lay jege di la xelal saa su ne sama gars yi fii boo fi toogee dinañ la toj douze ans de prison. non Moussa dinañ la nëbb jant bi. ma génn dëkk bi. mooy nga def. tu la fille du procureur. non Moussa loolu lu may mën Moussa bul fàttali sama mère man dong la am. mais seetal ci loolu.

nga waaye sàkku na te yëpp bari na àdduna am na ko